rëkk-rëkk bi mooy lan am na ay xale yu fi faatu bis yi passé am na ay xale yu fi jéem a sàcc waaye am na ci loo xam ne sotti yi fi am wax naa leen ñu ko sànq ci benn bi maatam la sottiwu ñaari Cees la sottiwu ñaari Grand Yoff la sottiwu waaye nag tereewul am na ñaar ñoo xam ne yàlla def na li gën kon ñu koy jaale seeni waajur di ko jaale waa Sénégal gépp nga xam ni benn dëkk bu ko mel bu ko amee bu julli jotee ilimaan ji lañ koy solal ñi ci des ñëpp def genn laaj

why Ramaphosa, are they Ramaphosa now? More the security. Autorité yi dox nañu instruction ci ne képp ku jalgati nañu la jàpp teg la ci yoon bu laa dee jëflante par tout moyen ñu jëflante ak ñi nga xam ne ñoo koy def par tous les moyens. dinañu sant tamit Sénégalais yi parce que li am ci yeneen réew yu bari amul fii. digg bëccëg muy tiire ay bal digg bëccëg muy cambriolé digg bëccëg ñuy def ay rab ay kidnapping wax dëgg yàlla yàlla dimbali na ba échappé nañ ci loolu waaye nag amul benn société boo xam ne délinquant zéro am parce que nit ñi heure bu ñu dajaloo naa si tàlli foo na mooy borom nga ni dama bind war dina am ñoo xam ne duñu wàcc raay bi waaye dina am ñoo xam ne toujours ci mbooy gi la ñuy dox ñu dox ci mbooy nag moo waral société boo gis am na ñoo xam ne ñooy sàmmkatu jàmm yi sàmmkati jàmm yi mooy takk der sàmmkati jàmm yooyu ci la police bokk mooy ñi nga xam ni ku def lu jaaduwul wala nga def loo xam ne dëppoowul ak lu jubal réew mi dinañu la fudd ba nga dellu si waat ci yoon wala ñu laata la jàpp ba dootoo ko gis ñaar a déviationniste yooyu ñaar ñi nga xam ne dañuy jàdd yoon dafa am sart yoo xam ni société bi daf ko teg mooy déggoo àndandoo xool ci benn direction ku ko jàdd ñu wàññi ñi fi nekk di dëggal dafa doon ay nit ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne dañoo waaye am na ci ñoo xam ne nag ci biir jubadi la ñu bëgg di am di ca reer di ca ndékki kon dañu tàllal suñu loxo société sénégalaise bi yëpp di leen xamal ni fépp fu ñu gis loo ni lëndëm na bu ñu ko mënee leeral alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu ko mënula leeral bu ñu nu woowee ci minute yi ci kaw dinañu ñëw def intervention taxawul leen seen seen taxawu leen ñoom ci seen bopp wala ñu taxawu seeni alal suñu vision mooy jàppale état ci paix ak tranquillité publique képp ku ko jalgati ñu jàkkaarloo ak yow jëflante ak ba nga dellu si xam ni nekkoo ci yoon boo dellu si bi ñu làkk la jàpp bi dénk la ñi nga xam ni ñoo lay dugal koo xam ne dootoo dootoo gis jàpp yeneen journaliste yi maanaam am na day ñu ñoo xam ni mën nañu dal ci seen kaw mais ñun alkaati waruñu parce que sincèrement suñu liggéey pour mu mën a visible pour ñu mën a établir vraiment ay passerelles de communication entre ñun ak société bi les seuls relais yi ñu mën a tenir pour constituer une force boo xam ni bu ngeen defaree mu defaru bu ngeen bëggee bu ngeen bëggee xëpp lu bari dina yàqu mais mënu la tere société bi dem de société boo gis dafa am yoon boo xam ne moom la tracé boppam te société boo gis objectif am réussite am muy nit ñëpp di xàccandoo di dóorandoo